naa dinañ ci wax ci kanam euh, mais dialogue bi nga xamante ni président euh, lancé na ko lan nga si xalaat da nga jàpp ni que acteurs yi wax nañu dem euh, wuy ji ñu toog waxtaan wala lan. waaw man lu ma jàpp moom mooy Macky Sall appelu dialogue am bi nekkul dara lu dul stratégie politique. stratégie politique. waaw dialogue politique warta nekk stratégie politique yàgg naa ko wax. Euh, moom stratégie la. pour mais y a toujours eu des dialogues au Sénégal des dialogues politiques surtout. waaw moo ma jeexal ah, <laughs> après nga tontu voilà donc stratégie politique lu tax mu wax ko moom mooy comme ni nga ko waxee y a toujours eu des dialogues politiques. Mm-hmm. Euh, dialogue politique bu mujj le 28 mai 2019 maa ngi woon salle des banquets à l'ouverture dégg nga mu wax ma dégg. Mm-hmm. mu ne conclusion yu ñu nar a jël bu ñu ci paree. moom da koy samp noonu ba sànq ci tuba jëfewu ci dara lu dul lu mu bëggoon d'une certaine manière tey man dama jàpp ni effet miroir la gis na F24 juddu mu gis ne en tout cas euh, affaire bi judd na ci diir bi nga xam ne mhm. euh, njortu ko woon mu gis épaisseur bi parce que gis na kujje politique bi ña nga xam ne moo si toog sax ci même table déggoo nañ autour de l'essentiel mu ko lu mu doon dund moom ak kujje politique boobu en 2012 Macky moo leen gën a moo gën a xam Sénégalais yëpp lu muy def lu mu def tiinu ko mais boo ñëwee ne da ngay dialoguer d'une certaine manière mais dialoguer yi euh, déjà da ngay déterminer ay termes de référence. Mm-hmm. doo woote dialogue ba pare di menacer ne boo leen ñëwul. doo leen bokk. mais ce que erreur amul si yéen pardonnez-moi erreur amul si yow ak ñeneen ñi nga xam ne ñu wax ne alors bu fekkee ni xamu leen sax les termes du dialogue est-ce que loolu erreur amul par exemple bàyyi ba nga xam ne am euh, volonté euh, xaw ma nan la ñu si si olof am euh, bon nga xam ni nga am njort bu baax ne président bu dialogue bi parce que année yi fi jaar gis nañ fi mars 2021 kii crise yu mu jur affaire yooyu noonu nga jox ko moom ni njort bu baax que voilà voilà mm-hmm. njort bu rafet que président bi pas mën na def mën na def ay affaire yu baax waxuma ak ñeneen ñi mm-hmm. démb jusque tard on a fait une réunion au niveau du F24 ak leader yëpp. Mm. cet après-midi dinañ def benn point de presse ils vont faire connaître publiquement la position officielle du F24. Okay. mais man lu ma jàpp dund ko moom mooy tey Macky Sall balaa moo woote dialogue pour ñu gëm ko déjà na appliquer conclusion yi nga xam ne ñoo gënoon ci dialogue politique bi dans leur intégralité d'abord ensuite ñuy woote benn dialogue. mais am na du ma ñàkk fayda ñaari yoon. dem 2019 am na ñu si appliqué. non mais non nekkul am na lu ñu ko appliqué. lépp mais teg fan la ku que dañuy ñëw dialoguer pendant des mois mu embarquer opposition bi ci benn tunnel politique parce que. waxee mooy lan moom mooy lan da leen di dugal ci benn sillon processus électoral bi combat Sénat délais yi ce sont des délais préfixés léegi bu ñuy conclure. opposition bi dootul amati sax marge de manœuvre pour mobiliser wala pour débattre day ne lii la nu mu wax ci appel bi noonu lay waxaat ku bëgg a bokk. noonu ngeen ko gisee ku geddaat sa non dama ko bind xam nga wax xam nga man euh, yàgg naa dem di négocier pour ay nit man amoo problème man ci suma métier avocat la avocat ku nekk ngay négocier y compris ton pire adversaire troisième mandat moo tax ngeen contre dialogue bi. non dialogue bi lu ñu ko wax dafa leer nañ. dafa am ñaari mbir yi nga xam ne mën a mënuñu ko négocier muy lan muy article vingt sept bi nga xam ne soppi nañ constitution mu wax sénégalais yi dégg ñu teg ko. mu mais du ce que lu nu mënul négocier am na tamit non si am parce que ponk ak charte yi bëri ñu ko négocier. mais comme que ay mais comme ay légal nga xam ne suñu cëslaay la. buñ ko buñ ko tegee. Mhm. dañuy ne lii moo ñu tënk dégg nga loolu moom mooy fondement mais ay légaliste beneen bi boobu mooy. Mhm. ay légaliste. ci laay ñëw man moom ma jeexal. moom mooy dañu ñëw xam nga ñu nekkuñu fi di taal ay pneu wala di def leneen ba mu jëlee samp loi wu bi dañuy ñëw. Mhm. dox dox dox dox ba cour de justice de la CEDEAO. Mhm. ci période bu métti pandémie bi nga xam ne dafa am ay restrictions ay contraintes yu bëri ñu xeex. ñu jox la ci raison oui. ñu ñëw décision boobu mais décision bi. moom tous les jours tey seen euh, ci lu leen waa lu ñu leen di ci force doit rester à la loi. Mm-hmm. mais moom daa am bu ko bu ko tënk. loi boobu paradoxalement da koy évoquer te du ko bëgg a appliquer boo waxee ñu ne dañu war a am consensus six mois avant parce que protocole CEDEAO bi moo ko wax mais protocole boobu c'est sur ci la CEDEAO sukkandiku pour condamner Sénégal ne ko loi bi day dingat day salfaañe ponk ak charte yi mu taxaw ne du ko jëfe fu ko teg. mais yow mos mos ngeen négocier jugement yow ci sa àdduna wala nga dégg ko. mais mais maître. donc yooyu buñ ko waxee.